Nah, ini kifli bagade haal haal boole sama wax ak dogi mu gisul dal sama sama la la yow ñan ko lan la foo jógee sa daw mu réew la yónnee Ernest waaye ñàkk waxuma lu ma dégg waaye ah saw fa sawaay ma gën ci mbedd la saway ne taaj ah baaxee eh muy muy dafa taxawal kii nu ma kër yow eh eh kaka taxawal mu taxaw ah ñaar baat la wax ñett la mu toog balaa mbéj kër oh sawaay duul mu mu gën a ko gën a bàyyi duuxu benn usuku pakk ci biir bi mu ne ah taxaw yaakaar daa am mu taxaw. waaw yaakaaroo man. waaw ma jël pause. Hmm. nii tàkk. waaw sa waay doom maa jëli. waaw parce que wala ko ma génne ka. maa jëli ka ka camañ ma génne ka ma ci ka ci ka ci bu kecc. oh waaw. xanaa daa mandi woon. waaw fukki dërëm dara ko. yow nga dóor ko. ba pare maa tam maa ko dem saw ba daa xale waat ak man ñëwaat du benn gu benn kii ma ma ne ko ni këj doo kii këj. ay mu mu taa mu tim ko bàcc kaj ko ndax kamay sa baay mu ne ma yow. kamay sa baay ma yow. ma yow ma njaago. Eh. ma ne ko jugoo mu jug ba ka taalal. ay jafe ma ne ko ah, ay Talla ba Caka Ndiaye. Oh, mu ko faa. waaye Ndiaye. fooy fooy fooy ko yow sa àll bi nga doon àll yëpp. non mooy yow fii fii nga def. mais mbaa gaañoo ko rek. ka naa la de. ñàkk ko su ko dëgg su ma la ko dëgg. su ma ko dëgg eh, ñàkk ko nag yow da ngaa ëppal quoi lii laa ciy bañ. aay nañ la xeex ba sonn aay nañ la xeex ci mbedd ba sonn léegi boo ko gaañee fi bu ñu tëjee yóbbu ñu police fan lañ jëm. xanaa naa fi xanaa naa. waaw Diaw. Abdoulaye moom dama kaa dóor fi mu ale bi ma ko dagg. waaw fii dagg. laa demoon sama lay xam naa dem ci alen bi mais dagg bi mbaa mbaa méttiwul rek fii xóot ba ma dafay yow loo boo ci dugalee juróom mu dugg fii fii fii kan def la def so bëgg rek nag waaw saa ji ke ke su suñu raatee suñu raatee sept jours waaw wala seize jours seize kàkk ne kàkk ne seize seize jours su ko dundaatee waaw ba xam ne dee na su ko mo xoolal li lii laa la lii la la kurbañ la kurbañ waaw fii fan la fàmb am naa fukk fukk

mais mel bi. ban mel bi ma koy dóor. waaw benn mel ma ma. waaw waaw maa ñëw. mel bi la mu ne ma ay sama doom bu lay kii may ko kii daf maa daf lu ne ma wax moo tax ma ma koy lay mu ne mel bi moo moo ma ñaan ba ma bàyyi ko. waaw eh, fii kër chef de quartier la. nit dañ fi ñëw nu mu neexee di ur ay papier. kii na kii mail bi ma ma dem ci mail bi eh, comme yow eh, samay responsabilité nga nekk. ma ne ko sama mag la baal ñu àq. waaw mënu ma ba fu rey nit lan la ñu wax. li yàlla li ñun fii fa la famb fukk mu nga taxaw di waxal foo tija eh man du ma njaago bi de man du ma njaago bi boo ma joxee fukk ma jox la ñaar fukk a jaw manube manube manube waa taxawal taxawal waa taxawal manube aka yaa ngi yëf fi bu yëf fi na sax mère maa ngi ñëw mère maa ngi ñëw ma dama bu yëf fi na waaw amul bëgg jàmm amul bëgg dara dama koy tijji mère mère mère ma rek tey baa ngi àq de. baa baa baa maa ko dàq mu daw dugg léegi ci kër gi. loolu la maa maa gaañu la ñu àq de. fan gaañ. gaañu la daw di nga gaañee noo anamu. yow ndoppi rek ndoppi rek soo amoon fu doo daw baal ñu àq ginnaaw ay jàmm dañ lay jégalu rek ngir yàlla yonente bi yéen ay njaago yu baax du ngeen tooñ kenn. waye ku len ton dina ci bëgg gën mu tëgu yow la ci sét su ko ci saté dama koy rendi baal ñu rek bu rendi dimbali ma ngir yalla bu rendi su dama koy rendi wa baal ñu rek bu rendi sét ma ci rek yow da nga am lo wax muy wuyu ko yow da nga daw wa ki def ni eh eh eh eh caabi ci ci li waay yow. Ah, caabi nga xam pare wala xool caabi. caabi mu ko sopp nga la da ngaa bëgg ma istawaale waaj tapet sa lamiñ bu rëy bi yëpp da daw ba xaabar xaabar. yegg si fi na ay dóor naa ko fii toj naa fii fii daw. yow nga ni ma da kaa dóor ba ñu ba. benn maire di ma yow ñaa ma xool def maire bi moo ma loolu laa la wax fii man ma la wax. ñàkk waxuloo ma loolu. man de ma waxuloo ma loolu da nga ne ma dooroo ko ba muy bëgg a dee. da bàyyi wax ñaari wax. samay wax la man lu ma wax dama koy waxaat. mais bàyyi wax ñaari wax. benn la. ay yow fenkat nga sa ndaf gi boo fen. mu ne ma sama sama morom de dama sama morom ah. dama njaago bay sama morom dama. bala ngaa jëkk la yow yow laa koy limbaal bi man du ma ñoom. njaago. njaago fayda bay bëgg a dee. njaago bu gaaw bi si xumaa moom dara. daw àll bi yëpp njaago bu gaaw bi tapet nga rek. waaw sa moromu góor di la dàq ji ngay daw. kii sama benn moromu góor moo mag fuuf moo mag fuuf nga sama moromu góor la du daw waaye kii moo mag fuuf te alem bu saf bi naa fa taxaw ne mënuma ko tël fu ma njaago bu gaaw bi waaye kat ay mbàkk ca moom njaago la ndax lii mu dawam yi mu daw fii kii waaw.